bokk auditeurs ak internautes yi ñuy topp ci réew mi euh, FM ak réew mi TV officiel ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen émission démb ak tey ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi tey nag ni ngeen ko déggee ci bande annonce bi dañuy waxtaane euh, maître Babacar Seye xam ngeen ne fukki fan ak juróom weeru mai bi si la am fanweeri at gannaaw bi mu làkkoo ñu nag ñëw tey si njabootam ndax bés la boo xam ne ñoom ñu ngi koy euh, commémorer à travers ndaje mais ñaanal ko jàngal ko alquran mais également fàttaliku ko Euh, tey ñu ngi fii kon ci kër maître Babacar Seye ci Sacré Cœur euh, euh, tàmbalee waxtaan bi ak koo xam ni goro la si moom mais doom la également ndax moo doon denc mooy denc taawu maître Babacar Seye meloon ni doom ci moom Moustapha Ndiaye ñu ngi lay nuyu di am mbégte tàmbaleeg yow waxtaan bi nga xam ne dañu ko bëgg a jagleel maître Babacar Seye ngir fàttaliku ko mais également delloo ko njukkal. waaw ah, jërëjëf gërëm bu baax merci di nuyu say auditeur di rafetlu trop démarche bi ngeen def pour ñëw fekk si famille Maître baba Seye pour fàttaliku vraiment ni mu fi jóge woon ci àddina yaa presque fanweeri at am na fanweeri at euh, famille bi nag niñ ko waxee rek ñoom chaque année ñu wàcceel ko kaamil ñaanal ko boole ci mbokk yi boole ci xarit yi boole ci ñi nga xam ni dañ ko bëggoon ak am jàmm waaye surtout ndax man Babacar Seye ku baax la woon man mun naa jox dara parce que dama ma considéré woon comme doomam maa doon denc doomam bu jigéen bu mag euh, di taawam et mu considéré ma comme doomam xale yi xam nañ ko ba nga xam ni ba léegi respect boobu ñu ngi ma ko jox euh, ni nga ñëwee nag euh, wàcceel nañ ko ay kaamil ñaanal ko ay kilifa diine yu mag aw nañ fi jàng alxuraan aw nañ fi famille bi nag ñoom rek ñoo fi nekk doom yi sët yi ñëpp ñaanal ko di ñaan yàlla liñ ko ñaanal te yàlla na ko fekk fa la mu tëdd di continuer rek di gën a euh, waxtaan ci li jëfam di xool ay jëfam di ci waxtaan di waxtaan ñi xam ni xamoon nañ ko au niveau de la nga xam ni xamoon nañ ko dans le domaine du ñi nga xam ni aussi xamoon nañ ko ci domaine religieux parce que yooyu moo doon ay kiyam ay activité am euh, tey nag euh, waxtaan nañ ñaan nañu di ñaan yàlla liñ fi wax yëpp yàlla na ko yàlla di ñu jàpp. ñu dellu 30 ci ginnaaw. ngeen xëy rek tiis woowu dal seen kaw naka ngeen ko dundee woon yow particulièrement waaw man man donc boo fekk na ma dugg ci famille bi effectivement et après euh, lu metti la. te man mun naa wax sax parce que moom danaa def politique man tam dama daan def politique man nekkoon naa maire naa maire Thiès donc xam naa ni événement politique yi euh, événement yu métti la woon. et liñ ko dundee woon mooy Sénégal yëpp ko yogoon Sénégal yëpp ko yëgoon et surtout que daf doon euh, dee bu métti ndax samedi boobu ñu ko faat am na ñu mu waroon taseel am na invitation yu mu defoon am na ñu waroon. Euh, toog waxtaan yëpp jékki-jékki ñu ne génn àddina te ni mu ñëwee woon keroog je crois que autorité yeeg ñëpp a jaxle famille bi aussi ni ko yëgee woon euh, mu dal ci ñoom te xam nga Me Babacar Seye non seulement amee woon na famille am waaye famille yi taxoon ci moom yëpp presque ci moom la ñu wekkoon bon e je crois que même au niveau de la justice aussi avocats yi jeunes yeeg ñëpp parce que nekk na ñaari yoon batu ñi les duggoon na bokkoon na ci association yu bare moo tax tiis bi ñu bare ko bokkoon vraiment moo tax métti woon na trop trop trop trop temps yooyu métti woon na trop surtout que ñi doon topp ñi ko def di ko dëj Saint-Louis jëlee ko Dakar dëj ko Saint-Louis délai bi mu amoon tuuti famille bi yëpp réunir vraiment temps yi mais nag Sénégal yëpp jàppoon nañ ci est-ce que 30 ans après seen naqar giif na walla am na ba tey càkkutéef boo xam ne yéen a koy am et vous y encore. non fayu bi euh, je crois que euh, waxtaan nañ seen biir te góor gi aussi dafa amoon ay soppe ay kilifa diine yu mag nee nañu dogal am na gëm nañ yàlla léegi justice bi nga xam ni moo am fii justice yu nit yi def na gëm donc ñun sur le plan la famille bi fàtte nañ loolu lii ñaan maintenant mooy ñaan yàlla xam nga lépp loo xam ni ñëpp dañoo gëm yàlla lépp loo xam ne suñ borom war na ko feerale da ko feejal képp ko xam ne bokk nga ci ci tiis boobu teg ko famille bi day ñaan yàlla yàlla woon la ko li ci des nag mooy xool ay jaar-jaaram xool ay jëf yoon xool li mu téye woon famille li doon def yooyu yëpp ñu jëm ci góorgóorlu jàpp ko roy ko ñun looloo tax tey nga gis famille yi ñu leen réunir di réunir sët yi di réunir yi ne nañu fàtte loolu mais bu ñu fàttee jëfam donc euh, comme jullit la woon dañ topp yoonu jullit bu baax topp yoonu màkk bi nga xam ni moom sawaroon na ci ba bokkoon ci ñi nga xam ni dañ daan euh, association bi nga xam ni ñoo daan toppatoo kaaba gi bon topp nga xam ni bon am na ñoo xam ni juriste lañ ci fayu bi avocat lañu ñu topp liggéeyam góorgóorlu comme lu mu daan def roy ci moom am na ñoo xam ni sportif lañu euh, surtout ñi ngi continuer di jàppale waa Linguère wala di jàppale waa Jeanne d'Arc nga xam ni équipe yooyu la xamoon di ko di jàpp aussi sport yi nga xam ni daan na ci dugal loxoom daal yooyu la ñuy topp waaw yoo xam ni daan na ko jàngale daan na ko wone te ku xam ni aussi di solidarité aussi famille am ndax famille bi daal leen daan réunir régulièrement ñu fexe ba nga xam ni famille bi daal danañ sude lépp loo xam ni xew na ci kenn ñëpp yëg ko lépp loo xam ni am na tiis bu xew ci kenn ñëpp yëg ko yëpp loo xam ne war nañ jàppale kat yëpp loolu daal la ñuy culture actuellement. loolu moo la gën a marqué aussi ci moom apparemment. waaw looloo ma gën a marqué. wala am na leneen loo bëgg ñu gën ko jàpp si maître Babacar Seye. pour terminer jàpp rek mooy mooy mooy góor gu baax la woon c'est-à-dire que am et puis amoon benn caractère boo xam ne man jaaxal na ma parce que quand même man mag maa ngi jéem a mag tuuti. mais pour di ànd ak ay xale di waxtaan ak ñoom di di di leen may sa temps kooku moom vraiment amoon na patience bi loolu lu jafe la woon parce que. këram saa yoo fa daan ñëw ay dimanche xool jeune avocat yi soog a dugg ci profession bi ñëpp dañ daan ñëw di waxtaan ak moom. mooy dafa doon transmettre xam-xamam générosité la loolu voilà générosité et eh, dana écouter tout le monde. et eh, je crois que am na jeunes yu daan ñëw suñ ñëwee ku ci nekk da lay accordé audience waxtaan ak yow soo amee problème aussi boole ko ci mu kii la loolu ouverture man moom moom moo jaaxal ci moom. waaw moom marqué ci moom. jërëjëf waaw bu baax la woon. si seede boobu la ñuy tëjee ak yow amoon mbégte lool euh, taataan sa xalaat ak sa peut-être seede si maître Babacar Seye euh, sëñ bi Moustapha Ndiaye je rappelle que goro nga si moom parce que yaa doon denc wala yaay denc taawam bu jigéen. jërëjëf merci beaucoup ñu ngi lay gërëm bu baax. alors ba tey ñu ngi ci hommage spécial à maître Babacar Seye gannaaw goro Moustapha Ndiaye ñu ñëw ci beneen sëtam boo xam ni moom tamit euh, am na lu mu ñu mun a wax si maamam à l'occasion des 30 yi nga xam ne moom la koy addunaam euh, sëñ bi ñu lay nuyu di la dalal jàmm nga présenté wu. waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd Abdoulaye Abdi Seye di sët ci maître Babacar Seye moo jur sama pap ñun man li ma xam ci suñu maam maam Mbaye sëy comme niñ ko faral di waxee dafa nekkoon koo xamante ne que valeur bi ma gën a marqué mooy ci côté diine bi surtout parce ñun ñii ñëpp sëtam yi ñun ñëpp amu kenn koo xam ne grande vacance daawul jot te du la ñëw foo mënti nekk ci Sénégal boo ñëwee vacances ndar mooy base bi boo ñëwee ndar rue Blanchot dinañ la jël dugal la daara alxuraan nga jàng te jàng bi du n'importe daara daara la boo xam ne da ngay dem pour toroxlu maanaam da nga daan sax dem indi ay yëre yu rafet yu baax mais booy dem daara da ngay sol lu correct rek dem te da ngay nekk sur les mêmes pieds décalités que taaliba yi fa nekk moo tax ñun ñëpp amu ci kenn koo xamante ne que tey jii nii matale woo le strict minimum ci wàllum diine bi te loolu c'est grâce à suñu maam parce que moo ci daan dafa daf ci exigeant woon trop trop trop trop trop ne moom sëtam moom ak doomam ak ku mu mënti doon alxuraan moom dina nekk sa dënn. alors biñ koy boom euh, euh, ban at nga amoon. defe naa moment boobu noonu maa ngi amoon dix ans. yan souvenir nga am ci événement boobu. souvenir bi ma am mooy man maa ngi doon jànge Joseph gamis Joseph Gomis benn école la bu nekkoon Fann Résidence jour boobu maa ngi jànge woon école léegi au chemin du retour bi ma ñëwee ma jaaroon ci côté corniche bi noonu wetu kër Moustapha Niasse fekk boobu beneen côté bi dañ ko baare woon noonu ne fii kenn du fi jaar man je savais même pas genre sew na crème bi la ñu foofu noonu ne côté boobu la après bi ma demee ba ñibbi kër ga di setaan télé laa gis ñuy def ay caricature noonu di wax naan Maître Babacar Seye ak yooyu si dama sama yaay ne génnal salle bi parce que buggul woon ko ma xam affaire yi nu ma demee parce que xale laa woon mais c'était un fait boo xam ne quand par la suite bi ñu demee ba rendre compte metti woon nañu trop trop trop mais dañu dolli sant yàlla rek parce que ci anam yi ñu ko defee ci anam yi mu génnee àddina ñun sëtam yi ñun waa kër maam maître Babacar Seye am nañ ci contentement ndax héritage bi mu ñu lege parce que ci ci xàq. way bi mu fi bàyyi. parce que tey jii nii amul fenn foo mënti dem ci Sénégal ñuy wax waxu maître Babacar Seye te kenn du dëgg te kenn du génne l'aspect xaq dëgg gi kenn du ko génne. éthique bi éthique parce que franchement c'était un homme de valeur boo xamante ne que tey jii nii même boo demee fenn sax ruus nga def quelque chose de gauche. pour que gars yi naan ah kii de sëtu diw la kii sëtu diw la loolu moom dëgg yàlla kontaan nañ ci torop waaw te di ñaan suñu borom gën ko xari daw si gën a kawe parce que nit la woon nit la woon koo xamante ne nit ku am valeur nit koo xamante ne que dañ ko respecté woon fépp fépp yan souvenir nga am si moom euh, des moments peut yu ngeen passé wala loo xam ni tey ba léegi à part éthique bi nga wax léegi dund ngeen ko wala nga fekkee ko mu nekk benn leçon si yow bon xam nga nag ñun suñu maam dafa nekkoon koo xamante ne dafa xawoon na actif parce que moom li mu daan toog bëriwul parce qu'il était tout le temps sollicité ci job ci liggéeyam même ci diine bi ak ci leneen parce que de temps en temps day nekk peut-être génn nekk di waxtaan ak ay kilifa pour affaire diine gi nu muy demee parce que même jàkka bi nekk suñu doone tamit de en temps fa daan nekk en même temps parfois muy ñëw Dakar di ñëwaat Ndar donc du coup ñun bu ñu wàccee jàngi ñëw suñu maam liggéey na wala bu ñu ñëwee fekk na moom génn na dam Dakar mais souvenir bi ñu am daal mooy daan nañu uuf ñun ñëpp daal toog ñu ñuy perturber ci kër gi mais heure jàng moom bu jotee da ngay jàngi heure fo nag bu jotee bu fekkee bokk nga ci ñu war a fo da ngay fo boo ci bokkul tamit da lay gën a tàggat pour que nan ngay fawee après mais jàng moom mooy priorité bi que ce soit ci alxuraan bi wala école alors est-ce que tey jàpp nga ni am na hommage buñ ko deseel njukkal boo xam ne réew mi waroon na ko gën a jox wala yaakaar nga ne li ñu def nii euh, doy na euh, méngoo ak li mu fi bàyyi. waaw man dama gis ne que tey jii nii ci wàllu justice au moins waroon nañ ko maanaam tuddee benn bërëb boo xam ne bërëb bu am doole daal boo xamante ne que da koy dañ ko koy fàttaliku parce que quand même dafa def dara ci justice parce que dafa tolloon moment boo xam ne ci justice. moom kese moo déteniroon le monopole de la vérité gannaaw yàlla suñu borom parce que yéen ñëpp xam ngeen nu mu demee dégg ngeen ñu ne dañ ko doon jéem a pour mu jéem a wax leneen lu safaanoog dëgg mais ci dëgg gi la ko teg au moins justice bi waroon na ko mën a rendre hommage am lu mu ko defal parce que bien vrai que ñun aussi xaaruñu justice bi ci dara parce que niñ koy defal mémoral mémorial chaque deux ans de temps en temps tam ñu koy defal ay yenn manifestations yi pour gën ko fàttali du question de moo tax ñu koy def mais dafa nekk loo xamante ne que pour. warul fàtte la. waaw lu ñu warul fàtte surtout pour génération à venir yi quoi parce que moment bii nii gis nga tension yi am ci politique bi tension yi tamit bu ñu demee ba ci biir élection la. élection après joxe résultat te moom ci wàllu boobu la doon gën a yëngu loolu moo gën a tax ñu war ko mën a rendre hommage daal. war nañ ko gën a mën a rendre hommage. jërëjëf ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool taataan sa témoignage en tant que sët ci maître Babacar Seye euh, di la remercier bu baax. waaw merci alors ñu wéyal euh, waxtaan bi si maître Babacar Seye gannaaw goro ak euh, sëtu euh, ancien vice-président conseil constitutionnel ñu ngi nag ak doomam maître xalilu Seye nekk avocat maitre ngay wax ci turu doomu maître Seye yi ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci démb ak tey di la remercier surtout ci occasion bi nga ñu may pour ñu mën a waxtaanee kilifa gi fi jógee le 15 mai 1993 ci anam yoo xam ni Sénégal yëpp naqarlu nañ ko ba tey aussi mu des di doon lu jaaxal ñu baree bari ndax uh, li ñu ci doon séentu uh, ci leer amu ci uh, xëy na loolu yëpp dinañ si mën a ñëw si si biir waxtaan bi ñu ngi lay dalal jàmm. maa ngi lay remercier soxna Fatou di la remercier aussi si tànk yi nga dox pour ñëw si njabootu Me Babacar Sèye pour xamal askan bi kan moo doon Me Babacar Sèye ba pare et puis bokk ak ñu naqar bi nga xamee ni tey nii moom moo tombé si famille bi donte am na fanweeri at. mais au moins souvenir bi nga xamante ni nii yow ñëw nga fii au nom donc de votre de votre euh, média de votre médium hmm, ñoo lay gërëm di la sant daal si teewaay bi nga fi teew tey jii aussi. jërëjëf ñoo bokk mbégte mi alors euh, bu ma la déggee nga wax naqar mooy dafa mel ni tiis euh, giifagu leen ba tey malgré que événement bi am na 30 ans mais ba léegi tiis bi mu ngi si yéen. tiis bi moom du mos a deñ ala kulli ba bu ñuy sangoo suuf yàlla na yéex du mos a deñ ndaxte. at bu jot su euh, askan bi fat di fàttaliku li li xewoon le 15 mai 1993 day nekk ay souvenir yu metti euh, kon loolu du mu sa deñ naqar bi du mu sa deñ donte dinga dinga di giif at bu nekk euh, saa yoo jullee waxtu nga ñaanal sa waajur nga ñaanal aji dawlu yi mais loolu terewul datu anniversaire u bi saa yu ñëwee sa euh, xol bi dina jóg parce que da ngay gis journal yi di bind rajo yi di si wax ni fàttaliku lu nga xam ne dafa métti woon si xel dafa métti woon si xel métti hmm, woon si dëkk bi aussi donc nit ñi di njaboot su fekkee nii dañuy ñëw am datu anniversaire bu mel nii faw xol yi tooy ndaxte dañuy fàttaliku lu bari si suñu waajur loolu moom nit moo demee noonu rek kenn mun si dara. àdduna waaw ñàkk la. Mhm. alors ñu delluwaat 30 ans si ginnaaw justement naka ngeen dundee woon xew-xew boobu euh, ci lan la leen fekkoon naka la dalee seen kaw. man xew-xew bi nag euh, daanaka bu muy am fekk na ma bitim réew boobu maa ngi dama doon jàng euh, doon waaj pare étude sama étude de droit bu muy bu muy am man ma ko yëgee bitim réew te si xaaju guddi laa ko yëg. Ah xaaju guddi laa ko yëg toog naa buñ ma koy buñ ma koy wax sax dina ma dina ne ma. Euh, sama benn nijaay moo ma woo ni ma sa papa ah, dafa gaañu mais xam si dégg-dégg bi gaañu bi mooy dafa am ay blessure maanaam def na accident am na ay blessure donc euh, sama nijaay boobu mi ma ko waxee booru 18 heures bu ma ko waxee ah mu ne ah paa bi kay kon na ko yàlla na ko yàlla yëkkati su fekkee blessure rek la bon ba ba guddi gi vers 23 heures sama nijaay boobu woowaat ma di jooy si saa si nag man euh, parce que ku la xamee ni mën na la waajoo mën na la papa woo di jooy te si si euh, waxtu avant woo woon na la ni sa papa dafa dafa gaañu nekk te gaañu bi mu doon wax ma maanaam dafa faatu. Ah, yow yaa comprendre wul woon. voilà man maa comprendre wul woon c'est que nag après xam naa nag euh, xolam may ko woon. muy denc ah, nouvelle bu mel noonu xibaar bu mel noonu mu koy denc ba guddi gi bu may woo vers 23h ak ay jooy ah, su yuuxu naa ko sax ci téléphone bi. Ah, mu ne ko amee tontu waxuma lan la la ah dafa blessé rek su blessé kay mu ne Babacar dem na. ni ma waxee Babacar Seye dem na rek si saa si dama tudd suñu borom dama tudd suñu borom parce que li jógee si man keroog. jooyu ma si saa si ndaxte dama delloo sama xel si yàlla ndaxte comme yàlla daf ñu jagleel ñun jàng leen alxuraan ba wàcc euh, du ñuy sant suñu borom lépp lu ñëw muy muy bànneex ak naqar du ñuy sant suñu borom ba pare waaye guddi gi nag bu ma demee nag ba toog ay boori une heure du matin boobu nag moom sa dëgg-dëgg nag moom tuuru naa nag. ba tey xamagoo woon circonstances yi mu génnee àdduna. ba fu may ba ba boobu xaw ma ko woon. xaw ma ko woon. accident nga jàppoon. accident laa jàppoon rek. Euh, après nag si laa déglu ay RFI rajo France internationale ah ma comme bitim réew moom laa moom laa mënoon déglu. si laa internet melagul nii. déedéet boobu amoo internet. am woon portable. Mm-hmm. Hmm, donc euh, si laa déglu après sur euh, rajo France internationale hmm, Afrique Nuit xam ñu wax assassinat de Babacar Sèye boobu nag lu bare bare bare bare jóge na si man nag boobu parce que ki nga xamee ni yow si moom moo doon si yaakaar et moom tam mu amoon yaakaar aussi si man ndaxte man rek may dooma bi nga xamee ni man maa doon def droit bay jeexal njabootam yëpp toll nañ si juróom benn yoo xam ne commencé wu nañu def étude de droit waaye yeggale wuñ ñuy def euh, informatique ñuy def sociologie peut nekk def beneen branche jàdd daal jàdd <laughs> waaw ah, man daal man maa si am euh, nattu rek. yeggale ko ba jeexal. donc si yow la doon gis boppam en quelque sorte. si man la doon gis boppam ba euh, su ma doon toog par exemple euh, xam nga échec du ñàkk si étude mhm. su ma ñëwee def benn examen échoué su ma ko woowee ni ko ah damay jàll octobre la mu ne non mon fils góorgóorlu dina ñëw j'ai fois en toi gëm naa ni di nga jàll parce que xam nga pas-pas bi sérieux nga te xam naa ni que yow soo soo buggee di nga am. mais lépp nag si loxo yàlla la nekk. Hmm? donc loolu suñ ko defee rek euh, ma sant yàlla daal waaw. donc moom la la doon encouragé. Euh, si sa si sa jàng et tout ça. Euh, te xam nga moom bu ma xamee ni que droit laa bëgg a def. parce que man damay def série littéraire bu ma defee série série littéraire mu demee ba am ba am baccalauréat boobu j'étais mineur boobu sama 16 ans ma tëggul. léegi bu ma orienté université Cheikh Anta Diop boobu euh, nu doon am autorisation hmm, man dinu ma orienté faculté de lettres leen ma orienté bu ma orienté faculté de lettres bu ma ko yëgee ma ne sama papa nekk papa man bëgg ma def lettre de parce que pour man lettre soo ko defee rek professeur ngay nekk ma ni ko man depuis bu ma nekk tout tànk sa tànk laa bëgg ko waaw man de droit laa bëgg def parce que bëgg naa nekk avocat comme yow moom moo dem mu ànd ak euh, ànd ak man ñu dem ba université faculté de droit ñu ne ko kii mënu inscrit parce que mineur la il faut que ñu bindal ko autorisation te yooyu papaam yow nga bindal ko autorisation mu dem gis recteur yaakaar naa à l'époque c'était Souleymane Niang yaakaar naa euh, qui était recteur de l'université euh, bu mu xamee ne que nag mineur la mu ni te mu xam ne ko par force droit laa bëgg def mu kontaan boobu bu depuis boobu nag mu may toog saa yu ma échec mënuma góorgóorlu rek parce que xam naa ne comme na nga ko bëgg di nga réussir noonu nag laa doxalee ba yàlla nattuma nag ah ma pare étude euh, bu may ñibbisi boobu fekk na boobu leen ko ba pare léegi nag su laa ñëw nag euh, def benn stage. kon bi yëf yi amee ñibbisi woo automatiquement. déedéet da nga toog foofu. parce que bi yëf amee man euh, boobu maa ngi si sama dernière année waaye comme yëf am na nag ba monde bi yëpp di ko wax même sama waa faculté ah ñu may masawu. ma dem euh, boobu amoon sama sama passeport dafa dafa périmé woon il a fallu que ma dem man ak sama seex parce que seex la ñu dem euh, ambassade di wuti sauf-conduit sauf-conduit boobu moo ñu permettre ñu ñëw dakaar boobu fekk na suul nañ ko ba pare donc ñun bu fi ñëwee fekk na au moins am na presque une semaine lañuy ñëw dañuy ñëw rek jubali directement euh, di wax aéroport ñëw fii sama kër sama kër goro sama Moustapha Ndiaye bi nga interrogé tout à ba pare sangu rek jëlaat oto tegu si yoonu Ndar alors lii metti si loolu nag mooy sama papa gëjoon naa ko teg bët 90 90 laa gëjoon ñëw vacances parce que dama gënoon bitim réew depuis 87 88 90 laa doo ko am possibilité ñëw vacances gisee ak moom ba bu may delluwaat ba bu mu koy boom gisaatuma ko teguma ko bët. bi nga ñëwee fekk na rob nañ ko. bi ma ñëwee fekk na nañ ko ba mu des ba mu am trois jours te loolu lu métti métti métti la parce que ki nga xamee ni da nga yaakaaroon ci moom ñaan yàlla ëllëg ëllëg sooy pare ah, di commencer liggéey avocat moom mu fekkee ko mais nga ñëw ñibbi si ñëw bi nga koy bujj gis mu ngi dund bi nga ñëwaatee 93 yaa ngi ko fekk si biir suuf. keroog euh, lu bare bare bare bare jóge na si man bu ma demee jàkkaarloog armée li sa caaka njaay métti woon na lool nga ñëw gis suuf bi nga xam ne moom la ñu teg si kawam muur ko toog naa foofu li mat waxtu jooy jooy jooy jooy mais après ak loo jooy jooy nag di nga am dem benn moment comme nit nit ba nit rek la aussi di nga delluwaat sa xel si yàlla nag. ndaxte surtout yaroon na leen ci diine aussi. yaroon nañu si diine ñu man man man wàcc naa alxuraan sama mag ñu si bari wax nañu alxuraan tey jii nii bu ñu wàccee kaamil aussi dañuy yor suñu jukki di jàng même sama doom bi nga xam ne moom moom laa jur aussi dafa jël benn jukki pour jàng moom tamit parce que sët yi aussi ne doon na fexe ñu jàng alxuraan non jàng alxuraan bi jàng alxuraan bi par force la ndaxte ñun suñu naan jàngee euh, bu ñu nekkee tout le temps suñu jàngee école suñu wàccee midi suñu suñu kër ga du nga fekk ustaas bi toog di xaar te doo doo doo doo wàcc alxuraan tant que mokkaluloo ba sëri te doo dem añi añ bi ñoo ngi ko ñoo ko wékkoon si nga mokkal ba pare tëri doo ko dem añi. te loolu moo si doon veillé. moom moo ko doon surveillé moom personnellement moo ko doon surveillé personnellement sama mag yi ñëpp ñu fi jaar ñëpp. ñoom ñëpp si loolu la nekkoon ba euh, ñun en fait loolu daf ko daf ko def si suñu biir xol. donc loolu dimbale na leen pour ngeen surmonter événement boobu surtout yow bi nga toogee ci bàmmeelam. bu ma toogee si bàmmeel bi lu bare. Ah, moo ñëwaat si diine. si si gëm ndaxte voilà ndaxte lu naan euh, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tey jii nii bakkan bu ñam dund dina am dee mais dee boobu mu ñam tey ñun diñ sa am mbégte ndaxte ni mu demee diñ jàpp ni kër chahid la ndaxte euh, demin bi métti na loolu mais demin bi moom dafa sacrifier boppam donc dafa def comme ci lu tubaab bi wax martyr kon dafa dem ngir askanu Sénégal ndaxte moom lañu doon wax à l'époque mu ne nii il est mort les armes juridiques à la maanaam jumtukaay yi ko yàlla dénkoon si wàllu yoon. ndaxte si fàttaliku man si ay dégg-dégg yu ma am ak si yi ma nettali même euh, yan ko yàlla yërëm bu fekkee ba mbay waxtaan nañ si parce que woon na doon jàll si sama mag point E euh, moom taxaw nañu man moom ba mbay ak sama mag bi docteur Koura Seye mu ñu wax lu bare si Babacar Seye mu ñuy wax ni euh, Babacar Seye nitu dëgg la ndaxte moom ragalul ragalul te moom si boppam xamoo na ni que ñoo ko doon menacé même buñ ko joxee garde du corps dafa ni soxlawu garde ndaxte su fekkee ni yàlla mi nga xam ne moom mooy meilleur garde du corps suñ ko jëlee tekk de côté amul benn nit ah bu mun sàmm nit donc moom bu ñu ko joxee garde du sax daf ko lànkoon mais comme c'était une obligation républicaine il fallait que mu am gàddu quoi donc loolu aussi ñun daf ñuy daf ñuy euh, daf ñuy neex daal. nga xam ne que kii dem na si demee nga xam ne dem na demee ni jullit. menaces yi fan la doon jógee xamu leen ci lu bari. menace moo xamu si dara mais jàpp naa ne rek à l'époque ah, euh, su ay dégg rek laa wax parce que man nekkuma fi woon. mais je sais que ils étaient menacés parce que li waral euh, ki nga xam ne moo doon président bi démissionné à l'époque que y avait des menaces moom il n'était vice-président. moom mosul jiite conseil constitutionnel mais man leen ni si moom la tegu woon d'ailleurs sax suñu waxee conseil constitutionnel moom la ñuy fàttaliku. ci contexte électoral lañ nekkoon ñu fàttali pour ñi nga xam ne. voilà si contexte électoral bu tàng tàng tàng lañu nekkoon. 93 hmm. tàngoon na lool laata loolu 88 jiitu woon na amoon na fi ay euh, policiers ñu rey amoon na fi ay euh, ay attentats ay oto yu ñu lakk ak yooyu tout dëkk bi tàngoon na donc te politiciens yi aussi maytu apparemment si la ma si la ma xam. kenn du may sa morom dara tàngoor na jur te jàppoon na ni Babacar Seye cible la cible nag si ban fànn dama xaw moo mais l'essentiel mooy lu ma leer ba leer mooy jotoon na ay menaces waaye dafa ni ku dul yàlla mënalu ko mënalu mënul dara si moom te bés bu naree dem tam c'est que yàlla ni waxtu woom jot na ku nekk ni ngay demee moom jàppoon na ni suy dem ah, dina dina dem ak jumtukaay yi nga xam ne moom la ko yàlla dénkoon. pour askan bi bañ ko fàtte. alors est-ce que menaces yooyu bi muy euh, si jot préparé woon na famille am na ñenn ñoo xam ne waxoon na leen ko pour que tamit ñoom ñu mun a waajal seen bopp psychologiquement peut-être ñi fi nekk wala ñi gën a mag. Euh, wala soxnaam. loolu góomu ko. loolu gëmuma ko bon man parce que fekkuma ko nag donc mënu ma si wax dara te gëmuma ni tam aussi doon na diisoo ak famille am en su ma waxee mën sax bon man xaw ma naka koy caricaturer daal mais li tax Kéba Mbaye démissionné ah kon loolu rek déjà rek dund borom xel. kon amoon na menace kenn xam fu mu jógee nag mais li tax kii démissionné moom mu ni du démissionné ah, parce que si nettali euh, Kéba Mbaye keroog bu muy ñëw euh, doon jaalisi mu ngi waxtaan nag euh, mi waxtaan mu am lu mu wax loo xam ne moom ba may sàngoo suuf du mu ko fàtte. mu ni Babacar Seye moom bu mu waxee nii dafay démissionné moom Kéba. Babacar Seye dafa téye loxoom dafa téye loxoom téye ko bu dëgër ni ko Keba bul ma bàyyi Keba leen xeex na dossier bi bul ma bàyyi. loolu moom mu ngi si sama biir xel parce que Keba mu ngi si dëgg maa ngi si fen kër bu mu koy wax maa ngi taxaw mu ngi taxaw nopp wax gémmiñam samay nopp. kon li leer mooy ñoom xamoon nañ ne yaa problème am na lu xewoon ñu leen ci xëy na xaw a bundu wala bëgg leen a def loo dara moo tax mu ne ko bul ma bàyyi mun nañ ko jàpp. loolu nag moom du si sore mais jàpp naa daal amoon na daal lu xewoon à ba moom mu ni dee liggéeyam dina ko def ba mu mët sëkk loolu moom leer na ma moom. alors tey 30 ans après nga nekk avocat ñàkkul jot nga si def ay gëstu wala nga xool parce que avocat aussi ku ko wax wax dossier wax enquête wax investigation. bu dee loolu yëpp def nga ko lan mooy sa conviction tey ci ci dossier maître Babacar Seye est-ce que jàpp nga ne justice a été rendue par exemple. waaw loolu dinaa ci sawar tontu ndaxte man en tant qu'avocat di acteur de la famille judiciaire jàpp naa ni justice def na liggéeyam. lan. maanaam la justice des hommes. def na liggéeyam te xam nga nag benn justice benn àtte moo am te kenn ko laam laam muy dëgg. te atte boobu kun fayakun rek moo ko moom. li tax tey jii nii ñu ni ku ñu atte tey jii nii soo kontaanee mu nga def appel. appel bi su su fekk kontaan kontaanee loo si nga def pourvoi en parce que nit moo mëtu kon nit dina atte si benn contexte juge daañu atte su fekkee ni atte bi yow dalul sa xel kontaanee loo si mu nga def appel kon jàpp naa ni keroog jour atte bi yoon nit atte na dossier bi est-ce que ate boobu ñu atte. mooy àtte dëgg bi déedéet benn àtte rek moo am te incha allah keroog ba su pénc ñëpp daañu taxaw ñi fa ñi doon la yooyu ñëpp daañu daañu taxawaat ñi ko même ñi ko doon àtte daañu taxawaat te boobaa nag kun fay kon dinañ wax ni la man maay àtte dëgg la man maa xam fu dëgg bi nekk yow yaa def lii yow yaa def lii nag voilà le châtiment voilà la sanction man loolu loolu la sama xel dal ndaxte du man du ma ñëw ne acte judiciaire ma ne àtte bi baax na wala baaxul jàpp naa ne ñi ko si moyens yu ñu amoon jumtukaay yu ñu amoon ak ni seen xel tollu woon si dossier bi atte nañu lu ñu yàpp ne que loolu mooy dëgg si ñoom waaw du teere nag atte boo gis nag dina am ñu si kontaan dina am ñu euh, loolu moo waral nag les voies hmm, mais tey jii nii jàpp naa ni ni ko doon atte atte ko kon famille bi amul benn recours bu muy euh, xaar wala bu muy nësax wala benn revendication bu muy def au plan euh, juridique alors léegi euh, fanweeri at si gannaaw mbir mi amoon na tey jii ñu ngi fàttaliku fanweeri at après man damay xool li nga xam ne daf may avancé loo ak li avancé sama askan askanu Maître Babacar Sy tey jii nii euh, sama sama mbébéj sama xeex mooy li fi Babacar def li fi Babacar Sy def si bu muy dund ak li mu meloon si bu muy dund ak li mu représenté woon te xamuñu ko xëy na à l'époque ñu bare dañuy xaar ba ñuy dem ñu doog xam seen valeur lu bare dañuy xaar ba ñu jóge fii ñu doog a gëstu naan mais kii kat nekkate lii la doon def nekkate kii ma doon représenté lii kii ma doon représenté man instant yi bi tey jii nii sama xeex mooy naka lay dem ba Babacar seen bu bañ fay tur bi bañ fay ba faw mooy naka lañ koy fàttalikoo si li nga xam ne daanaka def si lu baax si wàllu diine si wàllu politique si wàllu yoon si wàllu sport si bépp fànn parce que da ngay toog man ni en tant qu'avocat ngay toog ñu lay ñi lay nettali sa papa li mu daan def si lu baax ñoo nga xamee ni sa papa dafa leen daan di leen may man ñaata fii en tant qu'avocat ñu xam ne que kii ka doomu avocat doomu maître Babacar Seye la lii lii moom ko defal kër bi ma am ni tey jii nii bi sama njaboot dëkk ni tey jii moom moom ko may mu nekkee maire ñaata nit si ndar la dugaloon si ay kër ñooñu ñu koy ko ba tey jii ñaata nit la doon plaider gratuitement. loolu yëpp man tey jii nii loolu mooy mooy combat bi nga xam ne tey jii ah, moo jar mu ñëw parce que jii soo ñëwee ni euh, justice bi daan doon kii léegi dañu bëggoon révision du procès ma tey jii nii soo ko xalaatee rek mooy yaa ngi xalaat un besoin bassement égoïste parce que yaa ngi xalaat sa bopp rek mais Babacar Seye Babacar Seye famille bi moomatu ko parce que Babacar Seye Babacar Seye Sénégal la tey jii nii foo tudd Babacar Seye ku ko xam ak ko xamul di am loo xam si moom di am loo fàttaliku si moom kon te jii nii samay xalaat damay xalaat pour askan bi mais dama xalaat pour man samay bopp man kese waaw moo tax man ma jàpp ni yoon àtt na nen bàyyi yàlla àtte ëllëg hmm, mais tey jii nii xeex bi mooy ñu bañ ko fàtte ba xaw kon ci wàllu yoon amul lenn lu ngeen nar Euh, est-ce que jàpp ngeen ne euh, dëgg dëgg dëgg ñi ko faat sanctionné nañ leen parce que loolu tam polémique la woon am na ñu naan xëy na euh, beneen côté bi la féetee dañoo am ñu ci taqal le camp du PDS ak ñooñu est-ce que am nga conviction que ni les coupables ont été même si du ñëpp. ñi nga xamee ni yoon jàpp na ni ñoo ñoow def. yoon teg na leen daan. ñi nga xam ni yoon dafa ni defuñu dara yoon bàyyi na leen man foofu loolu rek mën tontu. loolu ngeen doyloo. yàlla la ñu doyloo rek. ndaxte ku gëm ni atte bi dina am ëllëg di nga doyloo si li nga xamee ni tey jii nii yàlla foofu jaarale parce que jàpp ni yàlla moo jox nit bi nga xamee ni matul si moom benn nit matul kon tey jii nii yàlla moo ni yéen yéen a koy atte jii lii ngeen di ko atte waaye man sama atte dina ñëw te bu boobaa bu su penc lay nekk te boobaa ñëpp ñu teew ñëpp daañu xam dëgg fu mu féetee waaw. alors que taxawu bi waroon à l'époque jàppoon nga ne aussi euh, njabootam am nañu ko mais dossier bi aussi amoon na ko vis-à-vis des politiques des autorités yi fi nekkoon parce que tamit vice-président du conseil constitutionnel quand même euh, du ko ndaw ci Sénégal. bon taxawu taxawu euh, nit koo xamee ni sa waajur daf la yar parce que c'est c'est l'occasion sax di sant ak di gërëm suñu waajur bu jigéen ji Adja Ndeye Ndaxte Sarr. bi nga xamee ni ñun ci moom la ñu meññ. ndaxte Babacar Seye bàyyi woon na ñaari soxna bu muy faatu. Euh, sama tànt bi Adja Ñaaña Fay Mar Diouf yal na yàlla fëgg ko gudd fan ak wér yaram hmm? moom lañ fi dese si waajur euh, nga xam ni moom moom baa ko si doon denc mais man sama waajur Adja ne ndaxte Sarr faatu na depuis 2006. donc euh, ñun def ñu amin daf ñu doon tàggat si doylu donc tey jii nii amul kenn si njabootam ki ñëw di bind di kaas wala di wax defal ma ni jox na ma nii wala defal leen ma lele ndaxte Babacar Sy daf ñu yaroon si ma soxla benn exemple rek si si doylu bi bu ñu nekkee bitim réew di jàng moom xam nga ku ñëw ko am sa doom rek ku nekk bitim réew ah, danga koy jox ay jumtukaay léeg la nga jox ko enveloppe mais ñun euh, daf ñu daan tàggat si doylu ba pare suñu daan yónnee xaalis daf ñuy yónnee tey jii nii mu bàyyi ay weer du la yónnee dara soo ko laaj dee ni ko amee ah, papa yow li mu yónnee nii du doy pour kii di mu ne mais débrouillez-vous euh, au même instant di nga dégg sa benn sa benn mbokk wala sa benn cousin bu ni sa papa kat lii la ko defal nii la ko teralee ñun loolu ñun ko ñun man daaw man sama wàllu bopp mosuma ko comprendre lu tax ñun mun ñu bëggoon ñu tumuranke di sonn mm. ba pare ku ñëw laaj ko rek suñu mbokk yi suñu doom kii mu jox la. ba pare muy serrer la ceinture. muy serrer la ceinture. ni loolu après bon man dama naan toog xam nga euh, soo jàngee benn kii capa soo amee benn capacité de de souffrance. Mm. ngay def euh, li ñu doon wax à l'époque le one by day. one by day c'est anglais donc c'est français mooy une fois par jour. Mm. one by day boobu xam nga mooy lan. mooy soo demee restaurant universitaire. da nga yóbbu sa ay marmite. nga tax nga fexe da ngay fexe nag ba minante ak restaurateurs yi cuisiniers yi serveurs yi da nga ne seen xarit sooy dem restaurant nga yóbbu sa benn marmite fii ñu defale fi ñànkatang fii ñu defale fi sauce ñu defale triple ration ah nga dem seen néeg soo añee di nga bàyyi pour pour guddi gi ah looy looy tàngal sa reer ndax nga gérer parce que boobu yaa ngi sakkanal lu néew lu mu la doon yéenee mm. te yéene boobu lu néew la mu la doon yéenee moo ko doon tey pour jàngale la may àdduna donc ñun suñu xam xaalis ñoo garder ni xaalis te pourtant terewul suñu nawle yi nga xam ne ñoom lañu nekkaloon di ay sénégalais comme ñun amul kenn ki xam ne que nii kat suñu añee ah, li ñu añ moom la ñuy reeree et pourtant duñ doon laaj naa leen waaye ma yéen ah, yéen vraiment seen papa mu leen di yónnee xaalis bu doy ah, parce que yéen du du ngeen leen dégg fenn ñu su fi leen gisee ngi set mais surtout yàlla rek ndaxte góor gi loolu doon leen tàggate woon hmm, donc loolu ku jàngal da ngay dellu si lu bare. donc tey ngeen doog a comprendre li taxoon mu doon def loolu wala une fois expliqué na leen. déedéet mosuñu ko expliqué. parce que ñun bon xam nga da nga waxtaan seen biir ah na nga la oui sama papa waaye vraiment paa vraiment daf ñuy kii parce que mu ngi kii yoon ah, du ñu ne xaar du ñu ne dara et pourtant par exemple bu mu nekkee président Linguère de Saint-Louis nekkoon président club de football mais li mu daan defal joueur yooyu. bi ñu dem dem Sàngalkam si toolam mu leen di mu leen di mu leen di jox ay xéewal sama ay doom sama ay euh, cousin maanaam frère mi ak sœur mi ñu ma leen doon jàppalee da dégg da nga ne sa defal na ma lii sa defal na ma lele yow nga xam li nga xam rek noppi mais après nag si ngay xam valeur boobu mu la doon inculqué li mu la doon jàngal noonu parce que tey jii nii euh, ñun jujjuwu ne rek am xaalis wala alal bu bare parce que xaalis da nga koy ñaq donc li mu la doon tàggat si loolu ni tumuranke di lekk benn yoon tey ji sooy may restaurant li la li la jox noonu nga toog denc ko ba reer tàngal ko reer gis naa si njëriñ bu bare bare bare bare te loolu xaalis mënu ko jënd day la mais loolu mooy ngor mm-hmm. tey jii nii su fekkee ni xaalis mën na jënd ngor kon dëkk bi kenn dootu fi des ndaxte su fekkee ni xaalis ngi jiital gëm naa ni sa mujj ju rafet ndaxte da ngay jiital ba pare sa ngëm nga doylu te doylu boobu nag lu am solo la ndaxte milliard du faq sa bët alal bu ñu gàññ kër yu kër yu ñuy gàññ du du faq sa bët essentiel mooy foo tëdd foo jàkkaarloog yow ak sa conscience nga nelaw ba yàndoor parce que jàpp nga ni yàlla moom mooy séddale te yàlla jox na su fekkee yàlla jox na la waajur yu baax may la xol bu set doy na sa ko barke waaw éducation kon def na ko ci yéen yar leen ci ngor yar leen ci doylu yar leen ci diine comme ni nga ko waxee lan leneen moo la marqué si moom loo xam ne bëgg nga euh, ñi ko xam ñëpp jàpp ko mais les futures génération surtout. alors Babacar Seye man li ma neex si tudd turam. mooy euh, ñi nga xam ni ñooy maase ak sa ay waajur ñooy maase ak sa ay yaay suñ lay nettali si moom ñu mu daan doxalee ndaxte. Babacar Seye faj na ay dagg dog na ay euh, buumu gàtt yu bare bare bare bare bare bare te après nga leen koy xam même si biir famille am xam nga euh, moom nekkul woon mag si euh, waajuram doon maam Mooro ndaxte maam Mooro bi ko jur moom moom amoon na ay mag amoon na ay mag yu jigéen amoon na tam ay mag yu góor mais ñoom seen biir famille ñun lu ñu gis dinañ juddu gis samay nijaay samay bàjjan di ñëw suñu kër mais ñoom ñoom suñu toogee seen biir macha allah dangay ngay yéemu si yàlla suñu ay waajur lañu woon de mais dañuy toog Babacar Seye suuf magam bàjjan Yacine Seye ma doon taaw si maam Mooro su daan ñëw Babacar Seye dafay jóg jox ko gëdd bu ma sëkk bàjjan associé zalika noonu bàjjan may mun a zalika noonu magam Ndiaye Yacine Seye Amath Seye rakkam yi Ablaye Seye Abdourahmane Seye Oumar Seye suñ daan ñëw suñu kër da ngay toog nga gis leen ñuy doxalee seen biir nga xam ne que mag ak rakk ñoo bokk ndey ak baay mais ni ñuy doxalee ku nekk jox sa morom cër. ñu wegante. merci te loolu loolu la euh, nga koy gis loolu la ñu inculqué ba ñun suñu kër ñu tam nii nga xamee ni man sama tey jii nii. donte xëy na man la wax naa maay porte parole mais porte parole lan parce que man maa yàlla man la nattoo rek ma sol sama robu papa rek mais samay mag dama leen fonk. tey jii duñu jël benn décision bu nga xamee ni mag ñi tooguñu tey jii gis nga tey jii nii ba teg sa sa bët fii tey jii sama kër la waaye sama mag yi ñuy jiite du mu fi def dara te sama mag yi amuñu sa aval la suñ su fekkee ni waxtaan nañ ko bu juboo ñu nag leen nag mettre kon waxal demal. te loolu yëpp moo leen si yare loolu moon si yar te man dem si sant bu baax a baax ndaxte jàpp naa itam yar bi tam aussi du si yar sa bopp ndaxte euh, sa euh, robe bi mu daan sol am naa tey jii nii ñaari robam yi nga xam ne moom la daan sol di ko dem di plaidel robe yooyu mu ngi fii sama kër dama ko retaillé defar ko sol naa ko lu ma fukki at ak ñeent ndaxte tey jii nii mën naa jàpp ni que maa ngi si ñaar fukki ak juróom-ñett di jëm si ñaar fukki at ak ci baro bi donc sol naa robam ba defoon naa dem ba su ma daan yóbbu pressing ah su ñëwee da ngay gis ay xoteeku xoteeku yu ndaw parce que dafa màggetoon. dafa yàgg première fois bi nga solee robam lan nga yëg. laa ilaaha illallaah xooxoo kooku c'était le 17 mars 1995. deux ans après bi mu génnee àdduna. voilà alors loolu c'était tout un symbole ndaxte sama yaay sama nijaay. sumay bàjjen daan na ko ñun euh, maa ngi prêter serment Cap Manuel mooy après hôpital de Dantec ñu ne promotion bu mujj bu fa prêter serment mais keroog bu ñuy prêter serment le 17 mars 1995 ba sama yaay sama tant samay nijaay samay bàjjan samay mbokk samay cousin tool woon nañu du ma est-ce sax ñaari téeméeri nit ñun ñëwoon tey jii nii te maa ngi fàttaliku ba léegi jooy yi ndaxte suñu gisee robe bi nga soloon. nga xam ne que Babacar moo ko daan sol rabaa yi mu daan kii ah rabaa yi mu daan yi mu daan sol di dem conseil bu mu nekk avocat parce que Babacar Seye nekkoon avocat depuis 1947 ba 92 mu dem conseil constitutionnel kon xam kon loolu yàgg na donc robu boobu nga retaillé ko sol ko jour bi nga ñu taxaw di waat si waatu avocat nga sol robu boobu non keroog euh, jooy metti na trop. parce que c'était euh, c'était la première fois. li nga xam ne moom mbébétoon na ko mu am mais malheureusement nag bi mu amee nag fekk na mu dëddu àdduna. on avait l'impression que moom moo dekki. jërëjëf moom moo dekki si robe bi ma toog. sol ko ba pare taxaw. di def lim daan def. wala fas yéene dugg ci lim nekkoon. et pour la petite histoire aussi dossier bi ma jëkk plaidé bu ma prêté seulement ba pare benn dossier la boo xamee ni ay euh, mbokki pël yu jógee euh, Richard Toll Richard Toll amoon dossier bu doon jàll cour d'appel chambre correctionnelle dossier boo xamee ni moom si moom lu jógee woon. Ah bu muy jëkk plaider dossier correctionnel si dossier wam la bokkoon. Ah waaw dossier wam nga doon en quelque sorte. laa doon parce que tout simplement ñi mu doon plaider ay Richard Toll Pellier Dagana Matam Podor ak si Saint-Louis ku si xam ne que Babacar Seye kat doomu léegi nekk na avocat. dina na bëgg rek automatiquement. automatiquement te loolu nag moo waral tax surtout aussi demuma sañ sama ne Saint-Louis parce que poids boobu dafa diis te euh, moom tol woon na fi nga xamee ni def doon def ngir yàlla te man nag suñu doorteel bi nag mënu ma commencé ngir yàlla nag aussi parce que da ngay da ngay wut sa buntu yow tamit te su fekkee ni foofu laa dooree woon ba tey jii nii gëm naa ni du mu am alal de. da ngay obligé def lim daan def en quelque sorte mais dina am nit dina am yàlla mais doo ndaxte koo si liggéeyal mu ne la ah sa bàpp day li ma doon defal ah def ma ko daan defal gratuitement di nga am kersa di ko laaj xaalis hmm, donc si obligé plusieurs fois defaan naa fi ñu nga xam ne moom si moom la si moom si turam la ñuy jaar nga xam ne man sa mënu ma leen laaj xaalis hmm, mais dina am satisfaction morale ndaxte jàppale naa leen ngir sama waajur waaw parce que noonu la daan def donc continuité bi confirmé na ci prestation de serment bi rob bi mais également dossier bi nga xam ne euh, hérité nga ko tey ban caractère nga gën a jàpp ci sa pap maître Babacar Seye. <laughs> Eh, caractère góor gi tàngoon na de. Ah <laughs> góor gi tàngoon na lool si njabootam. Hmm. yar bu sévère sévère sévère alors am na benn euh, exemple rek ñun bu ñu nekkee élève doon jàngi. Euh, Saint-Joseph de Cluny primaire collège Didier Marie collège euh, à Saint-Louis après lycée Faidherbe bu nekkee tout tànk don football si mbedd mi rek di football si mbedd mi di jouer égat ah, di jouer euh, ay pneu di bërëng kii bërëng pneu yeeg yooyu tout ça am dafa naa moon Mercedes am moom otoom temps yooyu fu mu klaxonné si Saint-Louis di nga xam ne que kii oto Me Babacar Sèye donc suñu daan toog di football di fay petit camp si mbedd mi di football ak suñu xarit yeeg yooyu da ngay point fédéral bi ngay toll. dégg klaxon foofu la foofu bi yëpp di jeex. parce que bugguloo mu ñëw fekk la si mbedd mi te loolu su ko daan def aussi day fekk duñu jàng suñu leçon ba pare parce que soo ñëwee xam nga mu ngi ñëw rek dégg klaxon bi rek nga daw. mu ñëw rek nga jëw su ñëwee bu mu fekk nga jàng si nga jël ubbi sa kaye may dafa daan da nga daan ñëw mu gis nga ubbi sa kaye mu woo la ne la kaye te doo mos waa waane nag ba doo sa leçon ndax jàng ba pare dem football ak sa xarit yi dem foo yi jàng bi moom moo jiitu woon lépp alors caractère boobu moom joxoon nañu ko aussi mais ak wax naa la tout si wàllu diine bi mais alxuraan bi ba pare tabaski korité ngeen di ànd dem jumaa ja ah suñuy ànd nga koy gis kër bu nekk ci koñ bi dina fa dugg saafonteeg mbokk yi foofu donc loolu aussi su le plan social sur le plan humain hmm, nekkoon na li nga xam ne ñu ni ko doon rafetlu daal. ba tey jii nii am na benn benn benn moment si bi may jëkk prêter serment aussi période yooyu su ma naan ñëw Saint-Louis di plaider am na benn euh, sama benn euh, wëlëre papa woon hmm, moom euh, na koy woowee maam Fadio Malen Mbaye suñu kër yi ñoo jàkkaarloo mu dafa naan toog si fenêtre di waxtaan ak sama papa si balcon bi tey jii dafa dëddu àdduna boo tey su doon dund tey jii war na am peut ay cent cent vingt cent trente ans mais jour bu may jëkk jël sama robe teg ko sama loxo di dem tribunal parce que tribunal ci koñ bi la nekk keroog koñ bi mais dafa nekk yëpp duñu génnoon si biti parce gis nañ ma may dox jël sama robe avocat di dox ah, benn maire bi dafa toog di jooy. mu ni ay Babacar Seye. day moom la ñuy gisaat. merci ah donc loolu mu wax li nga xamee ni moom defoon na ko si digganteem ak dëkkandoo yi donc yar nañu si loolu ma yar nañu aussi si doylu comme ni la waxee léegi nag affaire euh, situation yi nga leen di ko daan dund mu yóbbu la étranger ah, ngay xiif di mar te doo am sañ-sañ te doo mos a toog ni ko papa yónnee ma xaalis mosuma ko woon ne ko yónnee ma xaalis. mooy toog yónnee la ni lii dina doy si yow nga doylu si loolu te macha allah noonu lañu dundee ba pare jàng ba ñibbi si alhamdulilah rabbil alamin donc loolu itam tàggat nañu woon tàggat tàggatu nañu si loolu tam. très tey jàpp nga ne njukkal li ko réew mi ameel delloo nañ ko ko ba mu mat am na yu ko fi tuddee woon Stade Maître Babacar Sèye ak yeneen mais est-ce que par rapport ak li mu jariñ Sénégal jàpp nga ne li mu yayoo woon si hommage jox nañ ko ko. alors loolu su fekkee ni. dem si tontu dama naan euh, doylu bu ñu doylu noonu man jàpp naa ne même benn garab sax bu ñu ko ko tuddee jox nañ ko njukkal. rax si doole nag nga dem ba tuddee ko benn koñ parce que ancienne euh, rue Neuville moom lañu tuddee rue Maître Babacar Sèye à Saint-Louis te koñ boobu koñ bu gudd la si ndax si sundoone ñu dem ba jël benn stade bu tuddoon euh, stade Ville Thor ñu dindi tur boobu. def ko si sa turu papa loolu moom euh, njukkal neen ko joxal neen ko njukkal te sargal neen ko aussi mais surtout xeex bu ñuy xeex tey jii nii mooy saal bi tey ji soo demee soxal day jeex parce que c'est laissé à l'abandon mais ñu ngi xeex pour stade bi ñu war defar Saint-Louis côté université Singaleel ñuy xeex pour suñu dinee tur baab suñu baab Babacar Sy si stade bi nga defoon ñu jox tur Babacar Sy stade boobu te xeex boobu pour man stade bële dañ ko fi bëgg a jëlee. dañ ko fa bëgg a jëlee toxal ko yóbbu ko ngaleel te suñu xeex mooy stade boobu ñuy tabax ëllëg nga xam ne dina mun accueillir coupe d' afrique des nations coupe du monde ñu jël ko tuddee ko Me Babacar Sy te loolu man jàpp naa ni suñ ko amee. su ma dundoo àdduna sama xol sama sama man dinaa tàlli. parce que dina tax histoire am du fay. ku ñëw ci stade bi ne kuy maître Babacar Sey. ñu ñëwaat ci yow di li nga xeex lan la. soo déggee ni ni stade Me Babacar Sèye sud africain bi di ko dégg coréen bi di ko dégg euh, malien bi di ko dégg français bi partout dans le monde soo demee dégg ba Me Babacar Sèye di nga gëstu avec les nouvelles méthodes donc d' investigation avec l' internet soo tapee Me Babacar Sèye di nga xam histoire kon tey jii nii chinois bi dina xam kii kooku coréen bi dina ko xam français bi anglais bi africain bi daanu ko xam te jii nii kon su demee stade Me Babacar Sèye ñu bind si tur bi si stade bi stade Me Babacar Sèye ah ñu fay jouer coupe d'Afrique des nations di fa jouer benn benn tournoi euh, mondial mm. mais lu sax boobu dara mënu ko weesu kon jàpp naa ni njukkal même su fekkoon sax benn garab kese lañ ko tuddee njukkal bi doy na sëkk baax alors mooy nekk laaj bu mujj bi tey euh, ñi nekk ci wàllu yoon yow euh, ak ñeneen ñi mel ni yow di def droit nekk avocat wala am ay responsabilité ci réew mi lan nga leen di conseiller ñu jëlee ko ci mettre Babacar Sèye mu nekk téere ci ñoom mu nekk gàllaaj ci ñoom par rapport ak seen liggéey par rapport ak bu dëgg taxawee Sénégal nekk tey ci aussi benn moment bu critique ñu jëm ci ay jamonoy élection ñi ngànk wàllu yoon am ci responsabilité bu rëy rëy lan nga jàpp ne war nañ ko roy ci maître Babacar Seye pour am taxawaay bi mu amoon euh, ngir njariñu Sénégal. waaw tey jii nii euh, li ñuy dund ci Sénégal dafa metti metti na euh, éducation dafa baax ci nit. nee nañu un peuple éduqué un peuple développé c'est un peuple éduqué développement mi ngi basé si éducation te ni Babacar Seye demee war na jàngal ñu bare ñu bare war nañ si jàngat jëli sa ay leçon te ñii ñii ñoo ngi xëccoo nguur bi mais li fi euh, léppay léppay léppay jeex donc jàpp naa ni kii xeex pour jël nguur bi yoon may na ko mu xeex mais ngir yàlla na ko teg si ay anam na nga ko teg si ay chartes yu leer bañ di sacrifier ay nit. ndaxte tey jii nii soo gisee nii ne am na ñuy faatu am na ñuy lakk seen kër am na ay boutique yu ñuy lakk am na ay bis yu ñuy lakk mais loolu damay xool euh, euh, euh, ban njëriñ la am si askan. ndaxte ki ngay ñëw di lakk bis te sa waajur di ko jël ëllëg sa pour dem liggéeyi soo amatilee bis bu muy jël dépense bi du kon du am kër ga. tey jii nii suñu niveau nga nii da ngay lakk Auchan te Auchan bi kat ñi fay liggéey ay sénégalais lañ comme yow te su fekkee ne boutique bi tëj ni tey jii nii sénégalais yooyu fa doon liggéey duñu liggéey te ñoom duñu am seen njaboot duñu dundal seen njaboot duñu seen doom duñuy jàngi wala duñu fay duñu fay kon su fekkee ni kooku nga xam mi ngi liggéey foofu lakk ni jumtukaayam amatul source de revenu doomam war na jàngi amul lu mu ko fayalee école location bi war na ñëw amu lu fayee location fi bailleur bi courant war na ñëw war na fay courant war na fay ndox fan la koy jële kon tey jii nii nañu delloowaat sa xel ah, d'abord si yàlla ba pare jëriñoo histoire Sénégal yi nga xamante tey jii ku mel ne am jaar na fi parce que tey jii nii Babacar Seye dem na ñu ñu am suñu naqaru bopp te ku génn àdduna sa sa sa askan ñoo am naqar bi donte fekk même si c'est sur le champ politique daañu ko métti lu tey jii nii. mais suñ la suñ la dëmmoo yoo rek ñëpp a fàttal. si ñu si leneen. jour anniversaire bu nekk ah ñoom kese kese ñoo koy fekkee seen biir est-ce que lu ko fi jar. kon nag damay ñaan yàlla damay ñaan euh, acteur politique yi. ñu dellu si waat seen xam ni que yàlla rek mooy maye. acteur judiciaire yi nag lan moo war a nekk seen taxawaay bu ñu war a roy ci maître Seye. mais acteur judiciaire yi acteur judiciaire yi ñoo koy def ñoo ngi koy doxal de. kon dañuy wax ne justice moomul boppam te deewul njaaxanaay wala parfois il est manipulé. waaw par les politiques. mais ñoo koy wax. parce que jii nii man du ma ñëw nekk ci milieu judiciaire te mu leer ma ni justice mu ngi def liggéeyam ma sama akulaay taal la maa ngi ci maa ngi sama njàpp gëm naa ni justice mi ngi def liggéeyam mais tey jii nag xam nga y toujours des intérêts partisans tey jii nii euh, justice suy àtte ki nga xamee ne amul intérêt justice àtte ko dina fexe ba mbambu justice kii justice bi rek naan acteurs yi les acteurs de la justice ils sont corrompus ils sont ci ils sont cela pourtant justice ay nit tey jii nii moom moom moom moom la kaawam fës. mais ñëpp mel ñu ne maître Babacar Seye de. waaw mais ñëpp mel nañu mel nañu tam ne Babacar Seye. parce que dégg nañ fi UMS mu taxaw am lu mu wax ci ci ci biir justice ci émission pouvoir exécutif yooyu tamit quand lu ñu lu ñu mën a téye la quand c'est des magistrats qui parlent. xam nga voilà xam nga loolu émission de de l'exécutif su la xam nga tool kooku ñu tey jii nii on a un pouvoir napoléonien ñu tey jii suñu justice. suñu suñu euh, suñu suñu euh, maanaam suñu constitution donc ko jëlee si code Napoléon une France la ñuy mooy suñu royukaay te malheureusement xam nga on dit euh, le le pouvoir exécutif législatif judiciaire on parle même du pouvoir de la presse le quatrième pouvoir mais tey jii nii su fekkee ni justice dafa am benn branche bi nga xamee ni dafa rattaché si exécutif mais par force exécutive dañu si sam euh, kii son mot à dire. est-ce que ça veut dire que la justice n'est pas indépendante déedéet. parce que tey jii nii les juges du siège ils sont indépendants tey jii nii ku ñëw sa àqu lay taala kese moo tax ngay acte beneen at mais tey jii su fekkee ne dañu ni la justice elle est corrompue mais qui est corrompu dans la justice xëy na benn pomme de terre kese du tax ba sànq pomme de terre yëpp lépp mun naa jàpp ni dans toute corporation muy bos comme suñu bos comme fépp fépp. am na ñu baax am na ñu bon te loolu nag mooy tax nag aussi àdduna di doxee noonu su fekkoon ne tey jii nii ñu bon amul kon seetaan di fa am doole kon nañ jàpp ne seetaane rek mooy mooy ñëw nekk si gannaaw ñi nga xam ne di indi remplacement justice mais dans quatre-vingt-quinze pour cent des cas jàpp naa ne les justice les hommes justice ce sont des hommes de bien ce sont des hommes de valeur. à l'image de maître ñu doon waxtaanee ci démb tey bi maître Khalilou Seye ngay doom si moom amoon nañu mbégte lool dalal la waxtaan également ak ñeneen euh, membre de la famille ndax yéen a ngi ko doon fàttaliku tey fanweeri at ginnaaw bi mu génne àdduna le 15 mai 1993 euh, précisément ñu ngi lay gërëm gërëm aussi ñi jaar ci waxtaan bi yëpp euh, particulièrement di la remercier ci disponibilité bi ak occasion bi nga ñu may. merci beaucoup euh, Soxna Fatou en fait euh, damay juste préciser aussi xam xam nga tey la tey le li tax ñu def ko té jii nii parce que tout simplement le 15 mai. def nañu wàccee kaamil Ndar. Mm. Ah, euh, parce que foofu la cosaanoo mais comme dafa nekk jour ouvrable. Mm. ah loolu moo waral tey ñu dekkale ko nii bëgg nañu sët yeeg sëtaat yi bëgg nañu tey jii nii ñoom ñoom ñu fekkee ko. comme tey férié comme tey férié la ñëpp am jot mën ko fekkee. voilà loolu moo waral kon def ko jeudi bi mais maa lay gërëm di la sant si vraiment mébét bi nga am ba ñëw ba fii ah, di partage ak ñun souvenir bi di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla sàmm yàlla taxawu la te ku jaroroy nga daal. parce que xam nga ne man daan wax sa ay naat sa ay naataango kii de la presse mu ne la presse elle est très parce que tey jii man ak yow ak yàlla ñoo fi nekk di wax mais li may wax nii bas boo ko déggee si sa rajo fan la koy déggee te ki koy dégg naka la koy déggee donc dégg-dégg boobu su toogee di commenter doo ko fekkee yàlla na fekk li ñu wax yëpp mu nekk lu jub yàlla na fekk li ñu wax yëpp mu nekk li nekk li neex yàlla. ndaxte nit kese moo matul. mu nekk lu am njëriñ aussi. lu am njëriñ aussi askan bi jëriñoo ko. Ah, te di gërëm di sant di ñaanal yàlla aussi yàlla ubbi la xéwal ak wërsëg bu baax a baax. ñu lay gërëm bu baax a baax kon mbokk yi moo nekkoon seen émission démb ak tey ñu doon ci delloo njukkal ak fàttaliku maître Babacar Seye ancien vice président du conseil constitutionnel ñu boom ko le mai euh, tey jii ñuy enregistré waxtaan wi ak njabootam ñu ko ci doon euh, wàcceel kamil incha allah waxtaanee leneen ak keneen émission bi mun ngeen ko teewluwaat euh, kon ci suñu chaîne YouTube Rewmi TV officiel gërëm jaawo Diallo mi nekkoon si technique bi Fatou Thiam Ngom la woon ci kaddu gi ñu yendoo jàmm gi ñu yendoo jàmm gi ñu yendoo jàmm gi ñu yendoo jàmm